mal content la mal de la yàlla ma ma ñëw ba fii Ziguinchor am ay nouvelles yu ma neex yu ma di top di défendre de Ousmane Sonko motax bu ma fi ma dem ziaré évidemment je yayam fofu fi ci Ziguinchor dem nuyu ko félicité ko tamit si bëgg naa nuyu tamit quand même euh, imaamu Ziguinchor famille Younous Aydara ak tamit imaamu jaaxanke yi jaabi euh, euh, gasama yi ñoom ñëpp maa ngi leen nuyu di leen di ziar. Sénégal man gëwuma la traque des biens mal acquis dama koy wax xam ngeen lu tax c'est pas efficace man lu ma leen di proposer mooy beneen solution beneen mécanisme boo xam mi ngi commencé ci président de la république ci président de la république moo war a pouvoir am mandu ci alalu jàmbur. wàññi fonds politique yi bu baax a supprimer ko sax su ko mënee que les fonds secrets Pendant que ñu tàmbalee mën a guerre am ay mécanisme yoo xam ne ñëpp dinañ xam ne léegi affaire guerre Sénégal c'est terminé parce que ci président de la république ci boppam lay commencé dégg naa nag temps yi am ñuy wax monnaie ku nekk nag sa neexaayu baat moo lay yëngal sama candidat yi taxaw fii ci Sénégal ji wax affaire u monnaie te maa ngi fi loolu jàpp naa ne risque bu mag lañ jël kon nag nañu bàyyi wax jooju bàyyi ñu ko ñun ñu xam luy monnaie di leen dénk rek ne bu leen fàtte ne monnaie institution la loolu na xamuñu ko moo wax leen ko ñu xam ko donc ñoom lu ñu préféré mooy comme sa waa ji rek sol karawaat bu rafet nous ci avion première classe d'une banque mondiale d'un fonds monétaire donc banque islamique de développement signé une convention. xam ngeen ne ku spécialisé ci loolu candidat bu ñuy De Amadou Ba Amadou Ba il n'y il n'est rien d'autre que la photocopie réduction à 40 de Macky Sall. na Sédio Banco Makoy, Sénégal Banco Makoy. Puis fii laa affaire u daara yi mooy dërëm bu ñuy

parce que xale yi dañu xam luy alam lui environnement xale yi tamit mën nañu lu ñu xam luy institution de la république